man am naa lu ma mën a demee campagne laajuma ko ñaari dërëm na ma may jàmm ñiy wax ak xam ne ñoom ay géwal comme Farba Ngom xam ne dafa war a tontu moom ci liñ ko tuumaal ndax nee nañ ay milliards la yor te xamuñu entreprise bu ñu liggéey ci ay marché moom 2009 it moom Farba Ngom bi nga xamee ne dafa fekk Mercedes am bu paan

waxul dëgg na wax ñaata lañ ma fay ak luñ ma waroon a fay man de laaj naa assemblée sama alal ndax dañ ma ko yoral ñoom négocier nañoo man ni ma dañ lay jox ndàmpaay nga dem loolu moo am est-ce que loolu Macky Sall moo ma ko jox walla assemblée dégg naa ne moom mi ngi def ay ñuxum ñu di ay milliards di pasar pasaree ba jàpp na ci xaalis bu bëri te léeralu ko loolu la war a wax askan wi réewandeem nag ak xamadeem ak ñàkk tegginam na ko yemale ci moom du moroomam du ma mappandoom bokkunu histoire bokkunu fu nu jëm bokkuñu ab juddu buy wut ku mu woy ak ku mu tagg na ko woy ak tagg ko te bama ndax du ma moroomam li ci des nag bu waxaatee maa ngi avertir Macky Sall danaa wax leneen